إذ ألفاك يندب أن تقوم شوقا له في حفل أو بخلا فاحفظ له السر واستخلصا مراديه عساه يدعو لك الرحمن مبتهلا من في جلوسك بو توغي وفي جلوسك تسا توغاي in alfaaka bu la fekkee nga toog yunda bu sopp nañ an takuma na nga jóg na nga jóg waaw na nga jóg boo toogee ba sa sëriñ yegg si joxal bul continuer toog de seetal al dafa garaaw garaaw wala déet alquran loolu la wax wala déet fa ida qiila nshuzuu fanshuzu yarfa dina alladina min minkum buñ leen waxee ne jóg leen jóg leen waaw mu ne borom xam-xam yi ñoom laa yàlla jël teg leen ci kaw kon moo tax mu ne sa sëriñ boo toogee ba muy fekk toog de toog ba mu jag nag ba faax ba feex mu ne tel jogal togal mhm. togal bul toogati moo tax mu ne in alfaaka bu la toogee wa in alfaaka bu la fekkee mhm. noonu nga koy liire maamam wa mhm. fi in alfaaka danga ne wa in alfaaka bu la fekkee fi julli ci ta ci sa toogaay bu fekkee ci sa toogaay kon yoon ndabu sopp nañu bu baax a baax an takku mën a nga jog waaye jog ba nag bu mu doon gis jog ba mara wéy nag bu mu doon gis waaye jog ba na doon shawkan lahu ngir bugg ko saw ko mooy mbugeel mm-hmm. bugg ba nga koy bugg loolu nag moo xam fii xas li mm-hmm. ci mbooloola la fekk mm-hmm. aw bi xanaa wala yow kenn la fekk waaw ah. moo xam ci biir mbooloo la la fekk jogal moo xam def la fekk yow kenn nga toog jogal ñaari ñoo ci yëpp waaye ko xakada ci biir ci biir mbooloo nga ne ah jarul ma di koy def gis nga ko affaire bi xaw la dugg noonu wala bu fekkee ne gis nga ko yéen ñaar gis nga ko rek kese kese kese foo xam ne kenn nekku fa hmm. mooy demeen fii ah, jaru ko kenn nekku di hmm. gis ñaar yëpp la la wax hmm. foo ko gis daal jogal nu nga koy noonu nga koy def mu ne wax fas na dal di nag sàmm laxu ñeel ko ak sira sekkiram sekkiram te ko koy nobbal asala bu fekkee ne bu dañ toog bu fekkee bu fekkee dañ toog ci majlis waaw ah mu ñëw ñu toog ci majlis li mu ñëw dañuy jóg kay ah ñu toog ci majlis li mu génn si la faw si waaw dañuy jóg ah ah déedéet ñoom ñoo leen di jàngal <laughs> ñoom ñoo leen di jàngal ñoo leen di jàngal di déedéet ñoom la xakk ah. da ñoom ñoom moo tax ñuy wax déedéet man dama sëriñ man seen mag la Cissé seen mag la hey marabu xarab refu hey xarab refu ne yomma ni naneken naneken leya ñom sirin faba keɓa mo sirin ñam law leɓ ɗo mbaga witan déedéet li ma léegi damay laaj bu def bokkul maanaam man seen mag laa Cissé dégg nga. voilà akala seen mag laa. man man seen mag laa dégg nga ko. akala. ah. Papa Cissé sëriñ ñoom la di ñoom ñoo leen di jàngal du man de man jàngalu ma leen de. jàngalu ma leen de. yaa jox yaa ñu jox leen man Papa Laaji Moor laa. <laughs> mu ne na nga ko dencal na nga ko dencal ak sirra secret waaw secret même masalan même sëriñ bi sax masalan même sëriñ bi masalan te ba li nga doon laaj nii li doon laaj nii xam nga nekk am na ak ni mu demee la masalan tey jii nii sëriñ bu ñu fekkee fi ñun dañuy jog fi mu ñuy jóg waaw mais nag comme bu ñu demee gis nga ko euh, ñoom Ousmane Diaw foofu ñuy jàngee noonu ak yooyu noonu wala bu ñu waree dugg àlluwa muy dugg muy ñëw jarul jarul ñuy jóg xam nga li ma la jarul ñuy yokk waaw parce que lan moo tax ñuy toogaat waaye bu demee leen dafa wut dafa am lu mu soxla mu wala am lu mu dox façon maanaam bu nekk daal na ko muy ci waaw su fekkee ne wo yoon bi wóorul jiitu ko waaye su fekkee ne yoon bi wóor na nag te dafa ci gannaaw moo tax Abubakar noonu la doon def am na foo xam ne bu ñu fa yéegee fa yéegee mu bàyyi yonent bi lay demee xatta la waaw tax mu ne la waxfad lahu sirra waxfad lahu na ngay dencal nag sa sëriñ sirra secret daf de mu wax la dara ne ah bàyyi noonu bu ci wax kenn dara nag ah bu mu senni nag yéen ñaar wax mu ne bàyyi la gum nag waxaguma ci dara xam nga ma léeg sax mu wax ko waaye moom làkk boobu nag xamu xamuñu fan lañ ko jëlee mooy assisiri ñoom lañ noonu lañ ko waxee de maanaam def dara ci secret noonu mooy la koy waxee de moom assisiri xaw ma fan lañ jëlee làkk boobu <laughs> maanaam boobu daal xaw na ko kii assisiri xaw ma soose lañ ko jël traduire ko ci séeréer bi walla waaye moom noonu la koy assisiri waaw comme bu la waxee dara ñun te dafa bëgg nga nëbb ko fii na fii firi maanaam def ci loo xam ne bu ko kenn xam waaw a fi siriñ a laya de a fi siriñ siriñ nee na la koy waxee xakkala moo tax ma ne na nga koy dénkalay sekkiram sekkiram daal bu koy siriñ ci biir mukk mukk mukk abadan xakkala mu ne was taxlif delu ut del fokkarti maraadi del fokkarti pour mu gërëm hmm? déedéet déedéet loolu da nga war a wax moom la la wax ne ci siraaju tulaabu la olu mu ne del wax ay ngëneelam voilà wax ay ngëneelam di wax ay jaloore baax na wax la lay wax moom ci ci kon wastaxlif na ngay wut daal maradiyahu na ngay bi nga fukkar si la ko tuddee maradiyahu parce de mu parce que sëriñ boo ko xoolee li mu wax wa ko fukkar de ñëpp a ko waxandoo jërëjëf de wala de xàq na moom te de was taxlis waaw na nga foqarti na nga nangu na jël maraat yow ngir mu ngir mu i naafin koo xëy na bu la gërëmee yadoo la ka dina la ñaanal arrahmaana yàlla mu tax leen ci biir toroxlu xoolal sëriñ bi rek bu la gars yi di nettali bu ko bu di ñaanal ah déedéet ñaan yooyu ñaan yooyu mën ta ñàkkaa dal ñaana ñaana ñaana ñaan mu ne ba jóg taxaw ci piliane bi nii mu ne yéen ñëpp wax leen sama gannaaw alaaj maa sa aajo fajul adduna ak laaxira ko mu ne waxaat ko ba muy ñetti yoon xam nga kooku gis nga ko ca xom la jóge waaw moo tax mu ne sa sëriñ del ut ngir xëy na mu ñaanal dañuy wax ne ñaari ñaan yi yàlla du ko ñetti ñaan yi du ko delloo tudd na ca mu ñaanu ñaanu wayjur ñaanu wayjur yàlla du ko delloo mu abada waajur bu ñaanal doomam yàlla du ko delloo te kan mooy sa waajur dëgg-dëgg mooy sëriñ moo dëgg la ñu ñëpp ñooy wax Faaba Cissé tubaab boobu moo ko moo a laaj nu kii Martin boobu noonu tubaab boobu mu ne papp papp papp lan lay firi mu ne lu tax ñuy wax Faaba Cissé papp papp parce la wax commencement bi ma ko du papp de faapa la <laughs> papp Cissé ma léegi nag muy wax mbir yooyu ak mu laaj mu ne ma nag lan mooy faapa ma ne ko moo ñuy jàngal ñu ñëpp comme mu nekk suñu waajur moo tax ñu di koy wax naan papa papa wala de hakada moo tax mu ne la moom bu la ñaanalee rek yàlla nangu te loolu yàllaa ko wax ne yonent mooy seen baay waxul loolu parce que ummahatu wa azwaaju ko mooy la mooy doo jabaram yi seen yaay lañ wala de moo tax firiñ bi ñun ñëpp naka la ñuy wax faapa faapa faapa moo si gën a bëri firiñ bi firiñ dañ koy waaye itam faapa faapa danañ koy wax wala déet waaw kon moo tax mu ne daal deel ut ndërmaane ba muy ñaanam parce que ñaanam ñaanu way jur la moo ko ëpp doole sax ñaanu sëriñ bi moo ëpp doole ñaanu way jur bi fàq la wala dé dul karne ni bañ ko laaj mooy dul karne bi ci alquran ñu ne ko kañ la ci gën a jege sa sëriñ wala ki nga xamante ne mooy sa baay mu ne ko sama sëriñ parce que sama bàyyi moo ma indi ci coono muy àdduna waaye sama sëriñ nag mooy tey ci sama loxo wan ma ni may féeyee bi mën a génn kon kan nga war a gën a fonk masala moo tax ko gars yi sax noonu di ko seen waajur gis nga parce que mooy papa ñëpp te moo ci wér tax mu ne la asaaxu xëy na ah yaa dool aka dina la ñaana te bu la ñaanalee rahmaana yàlla moom tey lañ ci biir toroxlu moom yàlla nangu ñaan mu ne walaatu afifu bu ko sooflu nag taafuf arkaanu indi na ko wala takul law ma uffin lan mooy taafuf mooy kalimatu tadajjuri kalimatu dajar booy sooflu dara yan mooy sooflu kalimatu kalimatu sooflu ñett la de defe naa hmm? ak ban ak ah purut ak ciibu ak ah mu ne bu ko def su lu wax waa nga ciibatu su lu wax waa nga purcoo su lu mu wax waa waa waa bare nga ne ko ah bu def de walla tuwaafiku bu ko bu ko def de salaatu affixé fakala bu leen axu fii kaala ca mu wax an nga dabi ngir ne mer na nga mer rek mer du ànd ak sa di cibatu rek di purucu rek di ah bu def de wala tu saayir lahu te bu di déngalal nag xaddan lex bi ah dangaa jàng mokkal wala dangaa def dara mu mbéj da ngay dox di def ñii xaal ki ma wute bu ko def de yaa ngi <laughs> lii yëpp moom moo xam daara nag si moomul daara yi ci dafa xam daara wala tu sayir bu ko di lema du bu ko di gis nga bu ko di jëngal xaddan sa leex bi xaw nga wala tu sayir xaddaka bu doxee nii mooy doxee nii di dox di jëngal sa kii bi di def nii ne bu ko ko def de ah bi ma faalaa ngir ne am na lum la def moo am lum la def rek ngay dox xam nga takabur la walla def radd fay li takabur doxin boobu doon moo koy di duras mu ne bu ko def de bu ko ko def de xakka la kon wala tusaayir lahu bu ko jëngalal xaddan sa bi si ma faala ca la mu wax gis nga ko o bi ismi yi hmm? benn ñaar waaw ñeent o bi ismi foofu la ñeenteel o bi ismi yi ba nag jahratan directement turam directement laa tadoo bu ko ko wooy bu ko woo turam directement ah Abu Bakrin moo ko doon wax mu nga ne tuuti nga door kan ñoojo xale ndaw yooyu mën na leen a jur sax kon turam directement bu ko wax laa tadoo bu ko wooyee turam directement Alxuraan loolu la wax waaw moo tax see ci teggin la itam ñu bari li koy indi mooy ci wàllu yaay ak ci wàllu baay ak yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la da nga yenni xale ci ko amee mat na ko baay bu ko ne demal demal demal demal demal ci taalibu juuf dëgg la sa morom la waaye fi mu nekk boo ko yéene ci taalibu juuf ne ko demal ci faapa taalibu juuf lu sa bàyyi dëgg la waaye xale bi ngay jàngal mooy indi alkom bi mu wax ne la tadxulanna masjid al xaraama insha allah yàlla lay wax day dëgg insha allah est-ce yàlla mooy wax la tadxuluna da ngeen dugg masjid al xaraama da ngeen dugg ca Kaaba ja incha allah teg incha allah kon lu tam wax ko fa dafa pour ñun ñu miin lu incha allah sax loola pour bu ëllëgee booy wax sa nga ne ko la tadxuluna masjid al xaraama incha allah loolu yàlla comme ni nga waxee xale waaye ñenn ñi duñ koy téye. nga de yónni xale yéen it maanaam Salif bu Diouf imaana cër mu siiw dëgg la say morom lañu wala nekkuñ say baay waaye nag fi mu nekk nii comme ka nga yónni xale la boo ko waxee cër mu si la wala nga ne ko Salifou Diouf ah kan la ban xale la moom Salifou Diouf loolu xamoon de xale bi ñëw ne ko Salifou Diouf xaw ma naka mu ne ko te papa moo ko yónnee si ci Salifou Diouf te Salifou moom ak mu yónni ko ci Salifou Diouf de imaana mu ne ko dem koy dóor moom moom ak papa mi pare muy wax papa mi ci turam jaharatan directement laa te doon wa kama mu ne naka noonu fii zawji soxna moo tax yaay mairie ñu di leen di tuddee yaay mairie mairie mairie yëpp amul kenn ku ñuy jaar ci trop wala dëgg ci bala comme mairie nag ñoom ñëpp ñoo bari nag ñeent yegg nañu ñeent ñu leen tuddee naa naadiw naadiw naa mada naaji kadi naaji bintu gis nga ko naaji seenabu lu jiitu aji bi naka lañ doon boobu sax moo ci gën a siiw ba léegi sax bu naa ji seenabu naa seenabu rek waaye bu ñu ngi la naa lañ doon wax naa kat naa bintu naa seen naa naa yooyu lañ doon wax bi il faut mu moo tax mu ne kamaa naka noonu itam fii daw ji soxnaam bul jaar ci turam dëgg te xoolal faafalaa ji moom ak naa ji seenabu foofu sax moom ak naa ji bintu foofu waaye nu muy wax naa lay wax wala dégg kon léeg-léeg jabaru sëriñ bi sax yaa ko mag foofu waaye doo jaar ci turam da ngay wax naa hakaza wala dégg voilà gis na ko moo tax ñun ñi xas nañu mbir mbir nkoo nkoo nkoo nkoo waaye def naa gaa yëpp ci suuf léegi ñoom naka la ñu wax ah kon loolu loolu lu ci am solo la wala dégg awwala papaam moom papaam moom parce que mën na nekk sëriñ te papaam du sëriñ bi loolu de dana nit ñu nekk sëriñ te papaam du sëriñ wala de ah, ah kon bu fekkee ne papaam nga jël na jëli papaam indi ko yow nga nekk taalibeem te papaam mu ci kër gi del wax gis nga ko de koy wax maama masalan waaw ah, da koy wax maama masalan wala façon yooyu noonu noonu nga koy wax hmm. waaye bul jaar ci turam moom boppam hmm. parce que soo kii la am di koy màggal jox ko tur bu rëy bii xooy na faaba kon yow bul jaar ci turam directement hmm. wala déet moo tax ne aw waalidi wala déet gis nga ko naka noonu itam gis nga ko aw sa sayyidin wala koo xamante ne niki kilifaam la magaam la wala façon yooyu Pape Birama nuñ koy waxee Pape Birama rek ñëpp fii naka lañ wax Pape Almami nuñ koy waxee Pape Almami ñi ko Almami gis nga ko ñoom Fapal laaj yëpp noonu lañ koy tudde Fapal laaj yi ñu ngi wooyee Fap Biram Fapa Biram. wala déet Fapal lañ koy wax Fapal maanaam. ak la te est-ce que magante ni waaye Fapal koy wax. voilà yooyu orma orma rek. waaw moo tax ne aw sëy bi yëpp mu ne husila tere nañu nga di koy jaar. nga di ci seen tur. waaw sa turu sëriñ bu ci jaar. turu jabaram bu ci jaar. turu way juram ku ci jaar turu ki nga xamantene magam la wala yoy non mo ngi ku ci jaar ko xamantene dal lik wala niki karamom ta duggal ci karamom firi ñom mat ni do musiri do musiri ñi xana man nah, turu idu individu do musiri ñi de sëriñ bi la wax ak soxnaay sëriñ bi ak bàyyi sëriñ bi ak magu sëriñ bi wala rakam wala sëriñu sëriñ bi yii nag wax de waaw waaw waaw léegi yàlla kii moo tiit kañ ma ne ah boobu xanaa nga jaar ci turam nga jaar ci turam nga jaar ci turam léegi su fekkee jaar ci turam waxal li wér ne ko koto karo moo gën ah bu la neexee bu la neexee bu la neexee ku oh, ku nekk ci tailleur bi di ñëw da nga ne ko siñ bi loolu kay kenn moom ko ku moom siñ kenn moomu sëriñ ah, mu neex xanaa ah <laughs> déet ku mu neex mën na ko bañ <laughs> ku mu neex war na ko mën a bañ léegi su fekkee ne doomu ba dégg nga wax nga ko sa mag la wala bu dee sa rakk la ah man nga jaar si turam bu la neexee. Ah waaw karamoo kay wala sëriñ. bu la neexee nga ne karamoo. ma déglu ma la ma ne la bu la neexee sax kuy jaay ci bitik bi sax di béy sax nga ne ko karamoo.